maaleykum wa rahmatulah taala wa wa rahmatulahi taala ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi. ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. di sant sunu bunt ci lislaam xaadim rasulu. di sant sunu bunt ci lislaam di xaadim rasulu. di ziare nee na di ziare mboolem xalif généraux yi nekk ci réew mi yëpp. di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah. di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah. Serigne Cheikh mi ngi lay ziar di la nuyu. Serigne Ndigal Sène monsieur le ministre nee na mi ngi lay ziar mi ngi lay nuyu. man ak délégation moom ak délégation bi ma àndal yëpp. ca ñu lim nee na mu man ci ràññee madame le gouverneur mi mii ak mom ak mbollem chef de service fi nek yeb ci sama xarit monsieur le maire monsieur le ministre maire Mbagnick ndjay nee di ci ràññee nak xaritam magam di ministre de maire xem monsieur Mbagnick ndjay ak maire yi nek ci tundu bi yeb nee ak mbooleem maire yi nekk ci tund bi yëpp. député au conseil conseil économique social environnement. nee na di nuyu député du di nuyu au conseil waaye di nuyu nit conseil économique social environnemental. di nuyu chef de parti fi nekk yëpp. nee di nuyu mbooleem chef de parti yi fi nekk yëpp. nee na directeurs généraux yi ak directeurs nationaux yi mi ngi leen di nuyu. sëriñ bi ñu ñëw ci turu président de la république son excellence Macky Sall. na sëriñ bi ñu ñëw nag ci mi di président Macky Sall. Nena disakarit di andil ko nuyoom ak ziyaareem. nee andil ko nuyoom ak ziyaareem. ci sa ci sa bis bi. sang ba ca madinatu munawwara yonti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. nee na ci ndigalal sa sëriñ. sëriñ Ismaïla Diouf. moo tax président yebal nee na moo tax président Macky Sall yebal leen ak ñi mu àndal yëpp. ndax bis bii. nee na wax nañu ko léegi. nee na bisu ñaan la. bisu ziar la. nee na kon boog. nee na sa xarit monsieur le président Macky Sall. nee na jox nu ci ndigal. nee na ndax fonk nag bu mu fonk bis bii. àllarba bi ñu paree conseil des ministres. nee na àllarba kat bi ñu paree rek conseil des ministres. nee na la ko woo. ne ko dama bëgg nga wàcc. waaj def délégation. demal ma ci Serigne Cheikh Ndigal Sène. ndax bis bi. ndax bis bi. bis bu màgg la. bis bu màgg la. bisu lislaam la. bisu lislaam la. bisu Serigne Ismaïla la. waaye bisu Serigne Touba la. nee na kon bokk. nee na sëriñ bi. président mi ngi lay nuyu bu na njiitu réew mi président Macky Sall sa soppe mi ngi lay nuyu bu baax a baax. nee na di la ziyaara. nee na di feddali nag kóllëre sa diggante ak moom. nee na kon boog. kon boog sëriñ bi. nee na kon boog sëriñ bi. njiitu réew mi daal nee na. nee na xam na ni nga ko jàppale. xam nga ne fi nga ko teg. xam na it fi nga ko féete ci njaboot gi. nee na kon nag bis bii bisama. nee na kon xëy na. xat-xat yi xat-xat yi rek. moo tax. bu ko jotom mayen moom mooy ñëwal boppam ziar si. nee na ndax ba démb di démb nag. nee na fii la daan ñëw nag. ziara la. nee na loola nag. nee na sa taxaw ci wetam. ci jàppale. ci ñaan. nee moo waral lii. ndax képp nag ku nekk ci réew mi. wala nga nek ci bitim réew xamna na cofeel gi dox sa ak réew mi président Macky Sall nee na mi ngi la koy delloo bu baax baax nee na moom nee na mi ngi lay ñaanal yalla nga fi yag ci andak ci kanamu njabot gi yépp nee ci ndigalu sa sang bi serigne ismaïla Diouf nee na mi ngi sakku nak nee nga dolli ko ñaanal nee na na yaangi ci de waaye nag nga dolli ko. ñaanal réew nee na nga doolee ñaanal réew mi. sunu borom yokk fi jàmm. yokk fi sutura lool. nee na boole xol yi. nee na dafa am léegi ku wax ne. nee na dafa mel ni lu yàqu. waaye yàquwul. nee na ndax dëkk bu sëriñ Touba ne. maam Sidi Ajou Malick sang ba ci taaw nekk fi. nee na ak sëriñ Ismaahila Diouf. nee na boobu dëkk du yàqu de. ndax président Macky Sall nag. nee fi tangkam, mu tek tankam nee moy defar dekk bi rek nena and ko ak yeen rek nee xamna ne nak nee li tubab di wax temporel spirituel nee na and ànd nak yeena sekk njabot gi kon nak njitu rew mi nee mi ngi lay sante bu baakha baax di fedd li nag sa digeunte ak mom di sakuit, it nga ñaan ci fi ñu jëm nak election yi yi jëm nak sunu boroom def ci jàmm mu sedd guy yàlla may ci président Macky Sall ndam nee na muy nekk njariñu Sénégal ndax ndamu njiitu réew mi président Macky Sall mooy njariñu Sénégal kon daal sëriñ bi kon nag sëriñ bi kàddu yooyu noonu la ko njiitu réew mi waxan su ñëwee na ko wax nee na mi ngi lay yóbbante it jaar ziar ak nuyoo nee ki sëriñ Ismaïla Diouf sa sang ba yàlla fi yàgg ci ànd ak wér kene kon nag sëriñ bi nee na ñu ngi lay sant bu baax a baax di ne di ñaan nag yàlla ci sunu làmmiñ wu gàtt wi yàlla ñu la fi yàgg fekk nee na lépp luñ fi ñaan ci bis bi rek sunu borom yàlla na ko nangu nee na def ko ay xéewal nee na tasaare ko ci Sénégal ak bi yépp nee na kon boog sëriñ bi nee na mi ngi wàcce foofu kàddoom nee na lu ci dëng rek nee na ci moom la waaye nag njiitu réew mi président Macky Sall nee na li mu def ci màggal gii nee na bëriwul nag màggal yi mu koy def nee na ndax woo la ne la boo demee